pour moi d'être là en ce 8 mars, journée internationale de la femme, pour célébrer un peu l'ancrage de Cori dans la région de Kolda. Et je salue particulièrement les femmes du Fouladou, bien sûr, les femmes du Sénégal et de l'Afrique et du monde en cette journée de mars. Je suppose que Corinne n'a pas choisi par hasard cette journée, pour inaugurer ce beau bijou qui participe, comme le dit si bien notre neveu Alseni Baldé des au concept de Kolda Belleville. Nous vous remercions pour ce beau bâtiment qui prouve que Cori est définitivement ici à Kolda, au cœur des Koldoises et des Koldois, pour promouvoir la microfinance, donc pour promouvoir le développement pour participer man mi di wax nii damaa mos a jël xaalis dem sama kër dem Bamako man fa laay ay tissu di ñëw jaay si man damaa sonnoon wax dëgg yàlla mais yàlla kori alhamdulilah rabbil alamin damay dem Bamako damay dem Lomé di indi ay tissu ak di jënd samay jantar di def lu nekk di def sama business di def lépp domaine yëpp a ngi koy def. nee moom Moussa Camara mu nuyu mbooloo mi waa Lenkering la. birin nin koreñooje nene ko mu jokkalante koor yi ndon lenkeri mum solo mbeɗa haarinne ñoom jigéen ñi lenkeri dañoo feex ndem ndem sukamara mu handicapé ti portable mu handicapé nene moom handicapé la waa kër gi yëpp handicapé la ñu kema bu kadiyamu mamarima bu kadiyamu nene borom këram du wax sëtam du wax ndemu su kamara birin ala yaake dem ñol naata mu ne bu bu responsable bi nekk ci guichet Vélingara bu ñu moom ndol kan kayro daro ne men len jàmm rek la ñu amante ak moom ndol korinte joonoo la mu na ñoom mënuñu fay waa kóor yi mariama mandiang wala mun na président nee na mariama mooy seen présidente mbe dem konton na mu ngi nuyu dem mooy responsable guichet bi kori kori yentol bondi dami nee na kori fu ñu leen jëlee ñoom mënuñu wax loolu yëpp sabu na kori kori mu baadi yaa faŋole ti nee koor yi mbokk la ay na bataal bondi le dafa dindi seen coono yëpp te kay selelel naato ngandiŋol mu tay samba nga sele nga waapi nga beetu saayi mu ne moom dafa daan ànd ak doomam yi di yelwaan mais tey bàyyi na yooyu yëpp nsi ko do nga sepp na nga naati nee na dina dem defar laaloom ndiŋo ye ndiŋol ye mbuloo mi tan mbukan je doomam yi dimbale teye loxom parce que du gis bari birin niŋ kor ye ñoo bu mu gisee kor yi alhamdulillahi rabbil alamin mu ngi sant yàlla bu baax a baax nga ala tentu mu ngi sant yàlla bu baax lenkeri nga ala tentu kori la lenkeri yëpp mu ngi sant yàlla kori ñaanal kori mu jëm kanam la mu ñu ko liggéeyee kori la yaa loon ndimma kodoo kay wuluule kori moo leen xamal ni ndeke xaalis mën naa jur jaga ko ika ni ye ko do tay sa wulu ndino dara so ye dara so wulu ndeke boo xamee xaalis koor yi mën naa jur dërëm mu jur beneen dërëm ndol ma waloon nu lenkeri nee na ñoom xamuñu woon loolu lenkeri lenkeri bébé duwala nee na waa lenkeri yëpp ñu ngi ñaan bébé duwala koor yi waa gox ala ma koy sambala ñaar yal na koor yi jëm kanam ala ni laa ilaa horma ko naa ni mbaa naa mbe ala ko mbe dem ko mbe koor ko merci beaucoup nee na ñu ngi gërëm équipe bi yëpp aujourd'hui nous sommes à plus de 94 milliards Dakar au mois de février 2022. Figurez-vous qu'au démarrage, Cori, Cori n'avait pas un mètre carré de terrain. Aujourd'hui, Cori a acheté un terrain et construit à Kolda. Acheté un terrain et construit à Ziguinchor. Un terrain construit à Louga. Un terrain construit à Seyou. Un terrain construit à Kaolack. un terrain construit à Tamba et nous la construction du terrain de Djurbel, Inch'Allah, l'année prochaine. Nous avons un terrain à Fatigue. Figurez-vous, nous sommes partis de 26 employés. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 employés. Figurez-vous, au démarrage, nous n'avions pas moto. Aujourd'hui, c'est un parc de plus de 40 véhicules et plus d'une cinquantaine de motos au niveau de notre réseau. Figurez-vous les centaines de milliards que Cory a injectés. Aujourd'hui, Cory est venu peut-être tardivement par rapport à ses aînés, comme le Crédit Mutuel, comme ACEP, comme PAMECAS. Mais si on va au niveau du site de la Banque centrale ou du, de la, du ministère des Finances, Cory figure parmi les trois institutions dont la gouvernance et la gestion est magnifiée à travers l'indice. à travers l'indice de performance globale qui prend en compte un certain nombre d'indicateurs et de ratios, Cori a été classée première en fin décembre 2019. Et tout cela, tout cela, si nous l'avons obtenu, c'est parce que nous avons avec nous un personnel dévoué, engagé. Mais nous avons une cible particulière qui est la femme. je l'ai dit tantôt tout ce que nous organisons jigéen ñi ñooy ñëw def alal jënd seen tuuti fay seen transport rey seen i nag teral seen i gan le processus devait passer par la transformation institutionnelle de leurs programmes respectifs de microcrédit avec comme objectif de fusionner les programmes des deux ONG partenaires stratégiques et de les transformer en une institution financière formelle, légalement enregistrée et capable d'offrir des services financiers permanents aux populations pauvres, micro-entrepreneurs, principalement les femmes. C'est ainsi qu'un plan d'action préalablement élaboré et validé par les deux parties a été déroulé pour aboutir à la formalisation de notre institution en septembre 2005 avec un démarrage officiel de ces opérations le 1er octobre comme vous le constatez, a été très long. Du fait de la nécessité à l'époque d'informer et de convaincre l'ensemble des parties prenantes, autorités de l'Église et de CRS, agents des deux structures qui étaient recrutés dans les deux programmes de microfinance, les convaincre à s'engager et à s'approprier le projet. D'ailleurs, cela n'aurait pu se réaliser sans un engagement total et une appropriation de cet instrument de pastoral social par nos pères évêques qui ont cru au projet qui représentait une grosse innovation au sein de l'Église. Je salue notre ministre de tutelle ici présente, Madame Zahra Cham. Chère femme de Corée Microfinance, avec tant d'autres, vous formez une belle équipe de supporters à la mission de notre pays au sein de l'Union africaine dont la présidence est actuellement dévolue à notre chef de l'État. Notre pirogue commune, le Sénégal, chargée de valeurs précieuses, de valeurs précieuses à mission, comme nous le dit notre hymne national, à mission épaule contre épaule dans la fraternité, d'apporter sa cote-part au rendez-vous d'une Afrique mère, qui soit unie la mer est la source, la steppe est la forêt. Et Dieu sait qu'il n'y a pas que les hommes à ramer les pirogues dans nos rivières, nos ballons aux fleurs. Les femmes aussi le font, avec autant de vaillance que de courage. Que vive Corée Microfinance. L'agriculture, c'est mon collègue, président du conseil moom ak mbooleem waa conseil départemental ci seen mobilisation ak ci tertu bi nga xam ne tertu nañ ñu ko fii bi ñuy ñëw ci Kolda ñu koy rafetlu bu baax may ñëw fii yaakaar naa monsieur le ministre bu ma ñëwee ba Kolda sañ naa wax si say diggu mbokk taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci euh, réew mi taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci liggéey bi le président Macky Sall sant mais surtout taxawaay bi nga xam ne amal nga ko population de Kolda ndax nag ñooy bokk toog ci table conseil des ministres bi chaque jour nga ne ma ani jigéen ñi foog nga ñëw jàppale leen kon tey Cori microfinance jàpp naa ne dina yombal lu mel noonu ndax président Macky Sall lim ñu sant dinaa ci dellu si léegi gannaaw aussi bi ma nuyoo gouverneur de la région de Kolda bu baax a baax moom ak préfet di rafet rafetlu seen taxawaay ak liggéey ak disponibilité ñoom ak mbooleen service de déconcentré de l'État taxawaay bi nga xam ne am nañ ko may sargal bu baax aussi suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi ci seen taxawaay ak ci seeni ñaan may nuyu directeur de la microfinance mi ngi fi di nuyu président conseil d'administration bu Cori di nuyu di beral nuyoo euh, le directeur général de Cori microfinance muy Euh, Lamine Gueye DG Lamine Gueye bi nga xam ne sama xarit la mais du xaritoogee tax ma jàpp ko li tax ma jàpp ko mooy rôle ak taxawaayam bi nga xam ne am na ko ci secteur de la microfinance ndax ñun ñëpp xam nañu solos ak dayo secteur microfinance ci biir réewu Sénégal secteur boo xam ne lu ëpp ñetti million wi doomu aadama ñu ngi ciy xëy saa su nekk ñu ñëpp dégg nañu li Lamrana wax dëgg la da doon def euh, théâtre mais théâtre bi li mu ci wax dafa am solo ndax wane na ne nit boo nekkee ci mbir def ci sa fulla def ci sa fayda def ci taxawaay bi war mën nga ca am lu leen mën nga ca dem sax ba tabax ci kër waaye may wax na si këyitu kër gi aussi bu koy def ci turu Lamarana na ko signéloo ne du takk keneen la <laughs> na ko signéloo de waaw na ko signéloo mais wax na ci épargne bi épargne dafa am solo ci secteur microfinance ndax dëgg la ñi ngi dem jigéen ñi ñi ngi dem di leb di liggéey di ci faj seeni soxla waaye taxawaay bi nga xam ne moom la président Macky Sall bëgg dafa ne microfinance am na solo mais léegi dama bëgg ñu boole ci économie sociale et solidaire économie sociale et solidaire boobu mooy li ngeen di def nekk ndoor say kenn ku nekk indi la mu am ca dooleem na mu toll ngeen boole ko état bi indi ay jumtuwaay jàppale leen ba nga xam ne liggéey bi ngeen di liggéey dina romb lii nga xam ne yéen a ngi koy def moo xam ci wàll dundal seen njaboot moo xam ci wàllu solal njaboot bi waaye day daal di am na ku am solo loo xam ne aussi dañ koy mën a denc ndax jamono dafa tëradi comme jamono dafa tëradi nag sa lépp danga koy waajal ndax sànq dégg naa ñu naan li tax suñu bés bi am solo muy bés 8 mars te moo tax Kori ñu war ko sargal ndax boo ñëwee ba bés 8 mars nga xam ne àdduna yëpp dañuy sargal di màggal jigéen nga indi leen infrastructure bu mel nii nga xam ne dafa ne damay ñëw gën a taxawu jigéen ñi ndax Kori yàgg na liggéey fii mais anam yam doon liggéeyee xaw na jafe kon tey bu demee ba am agence boo xam ne yéen ñëpp di ngeen ci mën a ñëw mu nekk ci xolu dëkk bi gën a jege askan wi loolu avancé mais loolu lépp lu tax mu mën a am foog état bi topp ci gën a oyafal condition yi ngeen ci de gën a defar condition de recouvrement bi te loolu yëpp théâtre bi indi na ko indi na épargne indi na condition de recouvrement mooy surtout indi na accès au crédit ndax dafa ne sama soxna la la ñu wóolu ma ñëw ñu jox ma sans garantie loolu mooy loolu la microfinance di jël dañu fa war a jege nit ñi war leen gën a mën a dimbali kon vraiment ñu ngi rafet lu taxawaayu DG Lamine Gueye ci wàllu bi nga xam ne ñu ngi koy def ci liggéey bi yemul Kolda rek ndax ci wàllu APSFD bi am na convention bu ñu lié ak ministère bi te ñoom tamit am nañ ci taxawaay bu am solo may aussi dellu bi sargal bu baax a baax a baax monseigneur Jean-Pierre Bassène bi ci nekk euh, nga xam ne ñu ngi ci weeru kooru suñu mbokku catholique yi ñu koy ñaan aussi mu gën a dolli ñaan ñaanal réew ñu jàmm ñaanal réew mi stabilité ndax li ñu am Sénégal fii rek la am ñu ngi nuyu aussi imam Ratib Tall moom moo ubbee ci ñaan bi donc vraiment réew mi su xol yëpp àndee nekk benn doole yëpp ànd nekk benn ay tax tabax yu jëm ci kaw rek la ñuy am kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp may wax jigéenu waa Kolda nag daa mel ni man rek maa kontaan ci ñëw fii yéen kontaanu leen ci gis ma comme ah! kontaanu leen ci gis ma danaa jël financement yi ma fi indi woon yóbbuwaat ko ba Dakar waaye nag madame la ministre madame la ministre dama bët dama bëgg comme jigéen ñi dañu bëgg ci yow torop ngeen jóg ngeen ñëw won ko ne dangeen a kontaan ci moom jóg leen da ñëpp ñëw Thank you.